waaw euh, dimanche le 12 janvier stadium Iba Mar Diop lu mësul am am na fa muy ay promoteur association des promoteurs yu dajaloo ni dañuy dëgg tëgg drapeau ministre des sports bu dee mas naa mit 70 ba léegi maa ngi ci làmb te mosuma koo dégg kon loolu loo xam ne la Sénégal yëpp ko war a teewe Sénégal yëpp ko war a seetaane Sénégal yëpp ko war a rafetlu parce que Matar Ba dafa dafa nangoo dugg ci biir nit ñi woyofal boppam wàccee boppam kon promoteurs yi aussi euh, wàcc wàccee seen bopp wane ni Matar Ba sportif la làmb la booy xool dangay defe ni làmb la faral mais booy dem ci football bi da ngay defee ne football la la faral Matar Ba nit la koo xam ni fépp la féete jaboot la jaaxaanaay la tëdde mais maa ngi koy gërëm lu bare bare bari te di ko accueillir ci bis bi te xam ni bu ñëwee bis ba bu soobee yàlla fa la may fekk ak menaces yëpp yi nekk ci Sénégal Pape Abdou Fall mi nga xam moo jiite promoteurs yi. aussi bu yàlla defee jàmm bu ñëwee ah, man dana ma fekk man ak sama délégation menacé yi nekk ci Sénégal ñun ñëpp ñu toog fa ak président CNC parce que lii ku ko ku ko ku tëgg làmb CNC nga ko defal ku tëgg làmb menacé nga ko defal ku tëgg làmb ministre des sports nga ko defal kon lii bis la boo xam ne te mu nekk loo xam ne si mosuma ko gis comme promoteurs yi dajaloo xalaat xalaat bu mel ni ci seen turu njiit di Pape du far ñu dajaloo def lu rafet li li daal dama koy rafetlu te xam ne ñoom fu ñu nekk man maa ngi seen kanam maa ngi seen gannaaw ak sama xam-xam ak sama doole ak sama temps lépp maa ngi ko ànd ak ñoom te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ci làmb rawatina nag kuréel bi nga xam ne moom laa jiite muy menacé yi maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal sénégalais yëpp. di wax ne ministère des sports ñoo ngi lay teertu foofa te xamal ni kat drapo bi boo ci jógee yàlla na nekk ay édition yi édition édition yu bare bare bare yal na nga nekk ministre des sports ba keroog ngay nekk président de la république jërëjëf